rawatina ci weer tedd wi ñu nekk ak bis yu tedd yi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal di jiital ci ndokkeel gi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko waaye di nuyu bu baax uh, njabootuk sëriñ Bousobe gépp ak njabootuk sëriñ Saa Bousso gi di ci jiital sëriñ Bousobe Bousso Bangaaj xalifa sëriñ Bousobe waaye di beral nuyoo sunu kilifa ak bopp sëriñ Alxaaji Fàllu Bousso Ndumbe moom mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Afia Bousso jataay bii nag bokk ci jataay yi nga xam ne dañ koy waajalee màggaluk sëriñ Afia murit Saadix sëriñ Afia Bousso moom sëriñ Bousso be moom mi nga xam ne moom lañuy ñuy fàttaliku ci kastu Ramadan ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru Ramadan euh, bokk na ci waxtaan yii nag tey jii ñu war a waxtaanee as-Seex Afia Bousso wal nag jàpp naa ne moom mooy sëriñ Afia Bousso maanaam sëriñ Afia Bousso ak irada sadiq nag mooy ak murid rek mooy ak taalibe ak maanaa maanaa murid gu dëggu loolu nag jàpp naa ne su ñuy tuddee tur Serigne bu Bousso rek moom lañ ciy teg kon loolu waxtaane ko dana yomb ndax moom ci njëlbeen ki nga xam ne mooy defar murid yi ba tax ñuy xam nan la murid mel nan la murid wala war a mel bañ roy ko ci maanaam moom ci defar rek ci defar yu njëkk yi nga xam ne sëriñ bi ci la doon génne kuur bu njëkk bi nga xam ne ci lay wane murid yi ni ñu war a mel yabal leen ci ay gox moom dafa bokk ci ci kuur boobu euh, sëriñ bi nag moom loolu la indi ak bi ak murid la indi ak bi ndax fekkoon na fi ak mbaax muy julli ak woor waaye ak natt asaka lépp ay maamam ak i nijaayam ak i baayam ñoom ñëpp ci la leen fekk waaye bi mu ñëwee gis ne tool bi aajana yeesal aajana ruujaat dindi dég yu ndaw yi ak ñax yu ndaw yi gis ne daal am na ay pakk pakk am na yoo xam ne jikko yi moo ko indi moo ko indi muy jikko yi nga xam ne jikko yu yàq jëf la sëriñ bi nag taalif ay téere euh, bokk na ci masaalikul jinaan nahjul xadaa il xaaj jawar nafis mu layyinu sudur yooyu yëpp yuy tegtale jikko yu rafet la ak melokaan yu rafet dana tax taalibe bi wala jullit bi dana dëgmal boromam te dara du ci rax dara du ci sikk loolu nag moo taxoon suñu borom digal ko ne ko rabbi asxaabaka bil ximma wala turabbihim bi darsi faqat ba taxoon mu woote woote bu boobu ne képp koo xam ne jàng kese rek moo la fi indi woon man ngaa seeti foo ko def waaye képp ku jàng ak ànd ak man ci li nga xam ne moom lay woote man ngaa toog jàpp naa ne bokk yi jullit yu bëree bëree bëri ci loolu lañ toppe sëriñ bi ci kuur bu njëkk bi loolu nag ci Mbàkke Kajoor la woon sëriñ bi ñëw Mbàkke Bawol ci atum 1882 wala 83 ci jamono yooyu la jóge Mbàkke Kajoor ñëw sañc Mbàkke Bawol sëriñ Afia Bousso nag mi ngi gane àddina ci naawel ci atum 1867 foofu la gën a àddina ndax xam ngeen ne waxtaan wi loolu du fi xaj diggante naawel histoire naawel ak sëriñ bu soobee woote boobu nga xam ne Maba Jaxu Ba woote woon na ko ci sëriñ sëpp ñu ñëw Saalum looloo waraloon sëriñ bu soobee ak waajuram soxna Astawaalo Mbakke ñëwoon wuy ji woote Maba Jaxu boobu ba yàlla dogal na sëriñ bu soobee bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo gënoon a jàmbaare ca xare ba doonoon mufti ba doonoon tamit ki nga xam ne moo doonoon ki Maba di ba <coughs> taxoon na sax ubbee yi nga xam ne moo gënoon a jafe moom moo ko daan moo ko daan def loolu nag moo leen yóbbu woon foofu <coughs> ci atum 1867 nag looloo waral sëriñ Afiyee gane àddina foofu ci naawel bi nga xamee nag sëriñ bu bi nekk na fa ba maam Astawaalo bàyyi koo fi ab diir ci la sëriñ bi sëriñ mag bi yabal Cheikh Ibrahima Fall mu dem jëli sëriñ bu bi ngir mu ñëw fii ci Mbàkke sëriñ bi génn këram kërug boppam jox ko Euh, mu dëkk ci ñi nettali nag ak ci gëstu bi nga xam ne ñu ngi ko doon gëstu sëriñ Afia wax nañ ne jamono yi nga xam ne sëriñ bi indi na sëriñ Bousso bi rek mu ñëw fii ci la woo sëriñ Afia Bousso bokk ci nim ko jébbale doomam yépp mu boole ko ci ñi nga xam ne jébbal na ko sëriñ Touba ci diir bu teel a teel a teel ci at moom muy daanaka at mi mu bi sëriñ bi sañ tuxu see Mbàkke rek ci la ko ko jébbal ndax xam ngeen ne sëriñ bu soobee it bu fekkee dañu xam sëriñ Touba ku ko teel xam la ku teel a xam sëriñ bi la bu fekkee dañ koy xam ndax ñaanoon na boroomam ne ko nag ma may bala ma denc soxna ku ma ku ma am muy wàlliyu ba loolu taxawoon sut boroom nangul ko ko mu doog a samp kër sëriñ Touba seeral ko ne sëriñ bu soobee sant naa ko ndax dafa doon koo xam ne ndab yi ma jox ñëpp dama fekk ñu raxas ko ba mu set ba duy rek laa ciy def sëriñ Afia nag bokk ci ndab yooyu nga xam ne raxas na leen bañ bañ set mu jébbal leen sëriñ Touba loolu nag moo tax ci at yi teel <clears throat> xam nga su fekkee sëriñ yi dafa ganee 18 àddina 1867 ñu jébbal ko sëriñ bi 1882 soo dee xool booba at yi am bëriwul waaw yi mu am bëriwul sëriñ bi kon bi sëriñ bi bi sëriñ bi sëriñ bi di sanc Daaru Salaam mi ngi ànd ak sëriñ Touba bi mi sanc Touba mi ngi ànd ak sëriñ Touba. nga xam ne kon day ma day wane ne lépp loo xam ne mooy lu aju ci am njàngam alquran ak xam-xam lépp ci loxol sëriñ bi la ko defee ba sax bokk na ci ñi nga xam ne bi sëriñ bi di dem ci géej gi seenu tërbiya matagut ci ñu bàttale woon ak maam Thierno la bokkoon maanaam yeeweegu leen woon kon teel naa ñëw ci sëriñ bi kon mel na sëriñ bi sancub Daaru Salaam ma nga fa woon sëñ Afia mi ngi àndoon ak sëriñ bi mu bokkoon ci ñi nga xam ne Euh, ñooy góor yàlla yu mag ya ndax sëñ Moussa Elimane moo ñu nettali nañu euh, sëriñ Afia dafa bokkoon ci ñi nga xam ne euh, sëriñ Touba da leen doon yar fii ci Touba nga xam ne ñoo waroon sëriñ bi ci bi sëriñ bi sañ ci nga xam ne da leen doon yar ci beru di leen yar ci ak laab di leen yar ci liggéey di leen yar ci sikkar di leen yar ci bëgg yàlla di leen yar ci taqoo ak laab ak weg wegu ba tax ñoom ay góor yàlla lañu waxoon ne àggoon nañ ci suñu borom ba sës ca rikk ba nga xam ne bari na yoo xam ne waxtaan yi moo ko laajul waaye kon euh, ñu ñëw ci ñooñu bokkoon na ci ñi sëñ Tuubaa doon yar foofu. boo xoolee nag ci diggante boobu dañuy wax ne juróom-ñaari ati sëriñ bi góor yàlla yi nga xam ne yaroon na leen fi ñooñoo ñoo tisaaroo ci biir senegal ba tax nga gis yoon wi fenn fu nekk ab jant di fa jóge ñuy ñuy ñuy takk di niit nit ñi di jariñu ci ñoom kon Cheikh bu Bousso ci ñooñu sëriñ bi yaroon fii ci Touba bokk mu doonoon ñoo ku nangu nag koo xam ne dafa bokk ci ñi ñi nanguloon sëriñ bi lool te am pësteef te xëroon ci liggéeyal sëriñ Touba te xëroon ci lool ndax foo leen fekk dawuñ toogee loxoy neen benn ña ngay def dara wala ñuy jëf wala ñuy sikkar buñ demee ba nga xam ne defuñ dara sax dañuy jublu penku ak a sikkar kon ñooñu amuñu woon ak noppal noppalu bu ba noppi daaleen yar ci xiif waxtu ba waxtu wa del si ñu war a lekk ngëbu baraay ak kubéeru satal ak ndox kon jëloon na seen xol yëpp génne ko ci àddina génne ko ci lekk ak naan waaye jublu ko ci sun borom loolu nag euh, ci melokaan yooyu la Sëriñ Afiya euh, yaroo fii ci Tuubaa kon waxtu wi waxtaan wi bu fekkee histoire net histoire am taxuñoo jóg dañuy waxtaan rek ci al al ak ak ak euh, bëgg yàllaam ak taalibeem ak yar bi nga xam ne Serigne Touba yar na ko moo tax soo dee xool ci melokaan yooyu nga xam ne tax na nga xam ne euh, Sëñ Afiya amoon na ak nangu amoon tamit ak taalibe dëggu mën nañoo wax ne ci màndarga yi nga xam ne am na te yoon wi di ko def. bokk na ci ñi ko fi njëkke ak nattangoo bi nga xam ne ñoom la bokkaloon di yaru ci sëriñ bi wax nañ ne bu sëriñ bi daa jóge ci jullikaay it bi bu jógee fii di dem di julli ji dañ ko daa topp di sikkar bam yàgg ñu ñuy jàng ay xasida bokk na ci ñi ko def njëkk defal sëriñ bi su waxtu julli jotee wala yu demee noonu nga xam di di ànd ak moom di sikkar nga xam ne loolu day wane ne kon képp kuy jàngkatu xasida wala nga doon kuy def lu baax Euh, bokk boo na ci sa jëwriñ bokk na ci ñi ci ñi ci jiitu bokk na ci tamit ci nangu goo xam ne nangu woon na ko ak bëgg goo xam ne bëgg na ko sëriñ bi te bokk na ci melokaan yi murit saarix tamit bëgg gi day day mat sëkk day mat sëkk te du dara du ci yees waa day mat sëkk te dara du ci yees loolu mënees na cee seere lu bëree bare bëree bëri loo xam ne sëriñ Tuubaa bett na ko ay yoon yooni yoon yoon laaj ko lan nga bëgg mu ne ko xanaa di la gën a bëgg rek mu ne ko ndax bettaat na ko beneen yoon ne ko loo bëgg ma defal la ko mu ne ko bokk ci góor yàlla yi bu ëllëgee góor yàlla yi nga xam ne dañ lay siggil bu loolu nag lu rëy rëy la bokk yi ndax sëriñ bi am na ñoo xam ne su ëllëgee ñoom lay ségeroo ñoom lay tiitaroo Sëriñ ci boppam nettali na ko ne bu ëllëgee ba yonent bi di ni tiitaroo ci man noonu la amee tamit man ñoo xam ne damay siggi ci ñoom ndax bu ma yoonante bi joxee sama daraja jam ma digoon ñooñu tamit bu ma naree jóg dañ naan ma jógal dañ naan ma toogal ñooñu di di jóg di xettali mbindeef yi ba am ñu waaw ki nga xam ne biñ ko tuddee ba léegi moom jógut bokkam yi ñii di jóg di xettali mbindeef yi ñoo ñaan ñu naa ah ñooñu kat ñooy murit saadix yi Sëñ Afiya Buso nag ci ñooñu la tànnoon ngir bokk ci mu amoon ay jikko yu woo xam ne jikko yi murit saadix dëgg la ndax doonoon nag ku ku ku ragal yàlla doonoon na ku bëri ak jaamu yàlla doonoon na ku amoon ak dogu doonoon la ku wogu tamit doonoon na borom kersa lool waaye doonoon na murit saadix lool doonoon na ku jeex takk it ci bëgg sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu loolu moom ñi nga xam ñëpp seereel nañ ko ko bokk na ci seere yooyu nga xam ne ñi ko xam seereel nañ ko ko muy Cheikh Mokhtar Bintaloo bokk ci ñi nga xam ne xamoon na sëriñ Afiya te euh, bàyyi woon ko xel lool ba tax na euh, xasida gi nga xam ne Euh, wax nañ ne sëñ Daam Abdourahman Lo moo sàkkoon ci moom ngir mu def benn tawasul ci bokki Serigne Touba yi nga xam ne Serigne Touba da na a yar waaye tudd na ci ñu bëri waaye bi mu agsee ci Serigne Afia ci xasida googu nga xam ne mooy tasxiilul matalib euh, dafa dafa ràññee Serigne da koo sette bi ci Serigne Afia daan ne wabil muridi sadiqi jammil masaaya al waadiqi ahmadu ñang al waadiqi zil bisri loolu day firndeel ne buñ na buñ lay wax ne nag diw kan moo ko seere nel ndax borom xam-xam yaa ko seere waaye nag kam bokkaloon yaru kam bokkaloon nekk bu ko seeree day doon seere su dëgg dafa wax ne maa ngi ñaan ci darajay murit saadeex ba Cheikh Afia Bousso euh, ngir ñaan gi nga xam ne moom lay ñaan sunu borom def ko loolu kon lu wér la loolu nag mën nañ cee ràññee yii nga xam ne moom lay bëgg a nettali ngir li taxoon mag ñi naw ko ci ak muritam mooy dafa doonoon borom fit wu rëy dafa doonoon ku dogu ci bëgg-bëggu sëriñ bi ndax sëriñ bi am na bis mu woote ne dafa am gaal gu ma bëgg ku ma ko yanul koo xam ne euh, du laal suuf te dangay am njàpp sëñ Yaafe yëkkati loxoom ne loolu mën na ko muy diir bu gudd gudd gudd gudd wax nañ ne bi mu ko yanoo ba yenn ku gaal gi moom sëriñ Yaafe bu sa deru bopp bi dafa dafa ko dafa ko nga xam ne sëriñ bi moo doon jël suuf di ko sotti ci ci bopp bi naan ko ana lii loo jublu mu ne ko ana loo bëgg ma fàggul la ko ci di ko yéem mu ne ko xanaa di la gën a bëgg rek di la gën a bëgg ak bokk ci góor yàlla yi bu ëllëgee loolu lu rëy la doon yoroon na màndarga yi murid saadax tamit ndax euh, sëriñ Modou Kabir Ka wax na ne sëriñ Afi dafa doonoon koo xam ne foo ko fekk rek kenn mus koo gis mu mer dafa doonoon koo xam ne xar moom du ñëgg mukk du mer mukk foo ko fekk mi ngi nay mi ngi am mi ngi ànd ak mbégte ñu laaj ko ne ko waaw yow xanaa da nga dul mer mu ne eh, lu tax fuñ la fekk yaa ngi bég wala yaa ngi ree mu ne ah man de ci àddina dama fee gisut loo xam ne jaral na ma may ñëggal sama xar kanam loolu tamit mandarga yu rëy rëye rëy la bokkoon na tamit ci li nga xam ne sëñ Moussa Ka sëñ Modou Kabir Ka mu sëñ Moussa Ka nettali na ko nee na sëñ Afee bu so murit saadex la woon maanaam doonoon na koo xam ne melokaan yu rëy rëy la am yoo xam ne melokaan yu ñu sant yoo xam ne al irada sadiqa wa mahabbatuhu li seex al xadim loolu lu wér a wér la waaye nag amoon kàttan tamit ci faj ajo nee na siñaa foo ko mas fekk aajo joo ko mas a wax moo xam ju saayir la moo xam ju baatin la du jóg fam toog ana loolu lu ko lu ko may mooy ngërëmul yàlla ak ngërëmul Sëriñ Tuuba waaye tamit doonoon murit saadex bu mag a mag Euh, sëñ daam mat jéey tamit nettali na lu mel noonu ci daat ne man dey sëñ Afe xamoon naa ko waaye saa su ma su ma ko mas a gis wala képp ku mu mas a gis mu dajeeg moom te soxla xaalis moo xam euh, xaalisu saahir la aajo ma soxla aajo moo xam saahir la moo xam lu mën a doon day mel ne daal poos yi day mel day am day am lu ci nekk rek day làmbu rek jox la teyit bu dee ñaan musta gis suñu borom delloo ak ñaanam sa gis suñu borom delloo ak ñaanam wax na ne tamit moom ku yàlla joxoon barke la foo ko mas a fekk mbooloo yi nit ñi dañuy dajaloo ci moom mu leen di jegeleel boppam di leen berndeel ci ay ñam ak ay naan ak lu ñu demee waaye doonoon na ku rafet jikko te mënoon a defar ak bokk te mënoon a jaxase ay nit ñoo xam ne ñu war a ànd lañ ñu war a booloo lañ kenn mësu ko gis ci loo xam ne day yàq ab diggante loolu tamit lu lu lu wér-wér la waaye nag doonoon nag suñ tubaa bëggoon lool xam nga tamit sëriñ bi bëgg ko am na solo waaye mu bëgg lay dafa am solo maanaam si jaafe suñ daf koo bëggoon lool ba taxoon mu bàyyi woon ko xel lool daa ko jegele boppam di kaf moom di laal bopp bi siñaafee bu sa taxoon na dawul dagg sax kawaram taxoon na buñ ko masa laaj sa sa kawar gi mu ne daa moom kat du ko dagg ndax damay fàttaliku Sëriñ Tuubaa laal gi nga xam ne daf ko daa laal fu mu nekk fu ma toll loolu tax euh, du ma ko dagg mukk waaye mu doon koo xam ne dafa xam bëgg-bëggub Serigne Touba xam nga tamit bu ñu dee wax ak murid saadix wala tamit euh, ak taalibe mën nañu dellu ci sëriñ bi ni mu ko limee woon ni mu limee woon ak taalibe mooy lan sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbahatun nasamtuha xaw fa ixtiraar li tax mu indi dane melokaanu murid yi buñ koy natt buñ koy wax mën naa koo ràññee ci nii ci ne nii la danaa ko way nag ngir bañ ngeen wor ko waaye dañoo dañoo dañoo limal ay ay ay mandraga ne asidqu fil mahabbati sayxi abad summa imtithaalu amrihi ay su warat maanaam dëgg ci bëgg gi nga bëgg sa sëriñ waaye ci topp ay ndigalam nag saa su ndigal rote al mar'u maha man ahabba inna al muhibbu yutix liman yuhibbu maanaam nit ku nekk kam bëgg calam nekk lay nekk maanaa képp ko xëy da bëgg mbir dangay ngay topp ka nga bëgg calam nekk te bëgg-bëggub Sëñ Tuubaa nag weesu wutoon diine ak xam-xam ak gindi nit ñi ak yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lxara wa inni ahmadu bokk yi ak taalibe du mën a joxe rek ñu ne murit saadex la Euh, bëri njariñ rek ñu ne murid saadex la waaye ak taalib bi dafa am solo ci ni ñu ràññee sax murid saadex mooy nga tegu ca la sëriñ bi bëggoon Sëriñ Afiya nag yàlla da ko dimbale woon ci loolu mu doonoon koo xam ne ab yarekat la bu mag a mag a mag a mag doonoon koo xam ne ab jàngalekat la bu mag a mag a mag doonoon koo xam ne ku mënoon a defar jikko la lool lool lool ku mënoon a defar jikko la lool loola tax na mu amoon daara ju rëy rëy joo xam ne ci njabootam la ko tàmbalee sëriñ Modou Fatickani sëriñ Bousso Elimane sëriñ Abdul Moutalib sëriñ Abdoulahi Bousso sëriñ Mokhtar Fatickani ba ci sëriñ Thierno wala sëriñ Cheikh Fatickani ñoo ñëpp boo xoolee seeni melokaan yi nga xam ne murid yi ñu ngi jariñu ci ñoom kan moo ko def ci ñoom sëriñ Afee Bousso moo ko def ci ñoom moo leen yar moo leen jàngal tax ñu mën a bind tax ñu bari xam-xam tax ñu ràññiku ba mel ni ñu mel loolu nag lu ko waral mooy ñoom ba leen sëñ tubaa dajalee ba yeewi leen li mu bëggoon ci ñoom mooy ñu doon ay làmp yoo xam ne dañuy wër di di niit ñoom it di di di kon loolu li ma naan euh, euh, képp koo xam ne da bëgg da ngay topp ca la mu bëggoon mooy moom teel naa xam ne sëñ tubaa bi ko nasaraan bi di tuumaal ci naan ko daggee jeexaat daf leen a dëggal waaye dana leen euh, bil xilmi wat diini ci xam-xam ak diine rek lay jeexaat kon siñaa fi xamoon na ne li ñuy liggéey la sëriñ Tuubaa dëgg dëgg mooy fexe ba sa njaboot nga yar leen ci diine yar leen ci xam-xam waaye yar leen ci ak taalibe loolu nag jeexital na lool ba boo xoolee résultat bii nga xam ne am na ci njabootuk sëriñ Afia Bousso wax dëgg yàlla moom moo ko def ci ñoom ci yar ak jàngale ak teg leen ci yoon woo xam ne ñoom it lawal nañ ko ci seeni njaboot xëy na am na yeneen waxtaan yoo xam ne danañ ñëw ngir waxtaan ci loolu mën a bindu njabootuk sëriñ Afey waxtaan ci seen xam-xam waxtaan ci seen digg ak alquran wala seen xasida waaye loolu lépp su manee am ana lu ko waral mooy yar gim leen yar te loolu lépp xam gim xam bëgg-bëggu sëriñ Touba la te loola nag nit ku nekkin nag bu buñ lay wax ci sa digganteeg sëriñ bi sëriñ bee la yaroon dana baax tamit ci jamono jii nga teg loxo nga teg sa loxo ci ci résultat bi nga xam ne moom la de moo am fii ne tey waaye sëriñ Afey bu so boo koy waxtaanee ak taalibeem boo dee waxtaanee ak sëriñ bi yar gum ko yar dangay ngay mën a teg loxo ci résultat bi ci boo xoolee njabootam gi nga xam ne yar na leen njabootam gi nga xam ne bàyyi na leen fii ba loolu moo tax ñu doon làmp buy nit buy leeral fii yëpp di jariñu ci ñoom yëpp di jariñu ci ñoom doonoon na koo xam ne tamit ku mënoon a yare la ku mënoon a yare la koo xam ne taamu woon nañ ci moom yar ndax koom yu rafet yi nga xam ne amoon na ko nettali dañ la am na benn taalibeem boo xam ne mas naa dem ci àll bi for loo xam ne dafa wadd bi mu ñëwee ba in bañ ne moom kat diw sàngam kat dafa for dara dafa digle ne nañ delloo li mu for ba fa mu nekkoon ñu bàyyi ko fa waaye tamit nañ ko bàcc bàccal dañ ko yar ba bu ëllëgee waxuma la jël yëfi jàmbur waaye lu mu gis mu wadd sax du ko xalaata jël mbokk yi loolu jikko ju mata la jikko ju mata mataroy la loolu du du du lu woyof sëriñ Afia Bousso tamit bokkoon na ci ñi nga xam ne fekke woon nañ sëriñ bi gànnaar te xam ngeen ne gànnaar it dem fa yombut fekk na sëriñ bi fu mu mën a nekk amul tamit amutoon ab dogal ci njabootam ci lenn amutoon ab dogal ci njabootam ci lenn léppam sëriñ Touba la woon euh, fii mu dëkkit ak fu mu mas a nekkit sëriñ Touba moo ko fa dëkkloo ñu mas a yor moo xam ci njabootam wala si ay soxnaam ñoom ñëpp sëriñ Touba li tax mu dëkk fii ci Daaru Marnaan ndigalul sëriñ Touba la ndax toog na bis mu bind ay alquran ak ay xasida dem ànd ak njabootam dem yëti ko sëriñ bi ci njaareem biñ demee sëriñ bi di yéem mbind ma di yéem melokaan ya ba mu yàgg sëriñ di ko tàggu ne am na mbokk moo xam ne kat bëggoon na ma àndu si dëkk ci moom waaye sëriñ bi dafa gàntal lool ne ko Ahmadou Ñang mu ne ko mbakke mu ne ko fa nga nekkoon ba yar sa njaboot gi fi ba def ci ñoom lii seytaane xamu ko demal toog foofa nekkal ma fa ba sama jumaa ji àgg nga di ko jiiteel loolu sëriñ bi wax na ko sëriñ bu so loolu jàpp naa ne bokk na ci li sabab euh, ay ay njabootam yu baax yi nekk di yëngu ci jumaa ji wala ñu nekk di ci jiite ba léegi niki noonu tamit noonu la meloon ci sëriñ bi bi mu fi nekk waaye bi sëriñ bi jógee tamit bokk na ci góor yàlla yi nga xam ne sëriñ Tuubaa woon na leen bés ne leen euh, bu ma fi jógee yéen a may njëkk a fekk si kon bi nga xamee ne Cheikh Ibra Fall jóge na fi ak ñam ko booleeloon bokk na ci ñi ci ak gëm sëriñ Touba ak doyloo ko ci waajal boppam nag ngir waajal ay njabootam ne leen kat sama dig soreetut waaye tamit mën nañ koo roy ci ak taalibe ci melokaan wu mel mooy euh, bi fi sëriñ bi jógee ci warma ju mu ko joxoon loolu loolu bokk yi nekk Touba war nañoo roy sëriñ Afia ci ma jooju mu joxoon sëriñ bi bu masaa ñëw di siyaare si fii ci barabu sëriñ bi njëkk na ko def ginnaaw sëriñ bi sëñ bi nga xamee ne ñëw na Touba bañ indi ko fi toog na fii ci wetu barab bi moo ko ak njabootam lu mat ñetti weer bàyyi nettali na ma ko lu mat ñetti weer wala ñe juróom benn weer daanaka wala weer di jàng alquran ak xasida ak a sikkar ba nga xam ne daanaka dañ koo ñaan ngir mu dem ci kër yi maanaam toog na fii ci wetu barab bi di def loolu bokk ak njabootam diir bu yàgg bu masaa jóge Daaru Manaan di siyaare sëriñ bi su masaa ñëw bu fi tund mbal fi lay summee ay dàllam ngir wormal sëriñ bi ma saa ñëw ba fii ci post bi ci wetu kër Sëriñ Abdu Lahat fii lay tàmbali di raam wut si sëriñ bi su ma saa ba agsi ci sëriñ bi nag nee nañ bu daa dayaaleeg sëriñ bi daanaka day defeenu lu yàgga yàgga yàgg loo xam ne daanaka kenn du xam ci moom dara ngir fonk sëriñ bi ak bëgg ko waaye nag boo dee xool bi googu ak melokaan woowu mu mel ak murit saadix gi nga xam ne mooy garaat bi nga xam ne moom rek la bëggoon ndax mas na ne mas naa am comme àndal ñu dem ba agsi ci benn xabru ñu gis ne dañ caa bind diw murit saarax mu ne cey lii day bis bu ma xamoon ne suma ma faatoo ju biddal ma ko ci ci sama xabru doy na ma sëkk ak ñoom fiñ ñu àggoon ci sëriñ bi loola lu yéeme la loo xam ne euh, manes nag koo seeral ci ay màndarga waaye boo dee xool tamit euh, sëriñ Afia Bousso euh, macsuub giñ koy jiiñ ak taalu bégu dëggu gi ak jeex gim jeex tàkk ci sëriñ bi ak dof gum dof ci sëriñ bi waaye soo ko dee xool xam gim xam bëgg-bëggub sëriñ bi it lu la yéem la ci moom kon dafay mel ne ab taalibe dëgg bi ñu naw ci ak taalibe day xam li sëriñ bi bëgg mu nekk ca mooy mooy li ma doon wax léegi mooy mooy mooy dafa mel ne murid yi daal ñoo gënoon a yeewu ñoo gënoon a yeewu ñu ñi ñu ñu léegi ndax ñoom dañoo xamoon rek li sëriñ bi bëgg ñu daw wuti ko dañoo xamoon li sëriñ bi bëgg ñu daw wuti ko loola li ma ciy firndeel mooy résultat bi mu am ci yar njabootam moom la doon wax léegi résultat bi mu am ci teg leen ci yoon waaye fexe gu mu fexe ba lii yoon wi ci boppam teg na leen ci yoon woo xam ne faw dañ leen di jariñoo ci diine dañ leen di jariñoo ci xam-xam dañ leen di jariñoo ci bëgg yàlla dañ leen di jariñoo ci yar loolu résultat bu rëyee rëy la kon képp koo xam ne njabootam nga euh, wala nga doon nitam war nga bàyyi xel loolu roy ko bu baax a baax kon su ko defee jàpp naa ne euh, doy na ab tënk ci ñu tënk loolu ci Serigne Afé Bousso ak ak taalibeem waaye wala Serigne Afé Bousso ak dëgg gum dëgg woon ak jeex gum jeexoon ci Serigne Touba jeex takk noonu tamit la ak njabootam meloon ñi ki ko njëkk a wóor di Serigne Modou Faty Kane ni ba ci Serigne Thierno buso mi nga xam ne moo fi mujj koo ci gis ñun ñi nga xam ne ñoom moom lañ xam soo ko gisee da nga xam ne ak taalibe dong moo ko ñor lu baax rek moo ko ñor kon ñu ngi ñaanal sëriñ alhaji fàddilu Bousso Ndumbe moom mi nga xam ne moo fi wutu sëriñ bu Bousso tey suñu borom gën koo may gudd fan ak wér te saxal ñu te xiirtal ñu ñu nit ci bëgg sëriñ Touba te nekk ca la nga xam ne moom la nekkoon di ñaan suñu borom magal gi nga xam ne Cheikh Mamadou Fadal moo ko digle woon muy kastu Ramadan ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ñu yàgg koo def di sant bu baax fondation mu jaalibatul maraaxib ak mbooloo yi nga xam ne ñoom lañu àndal ci taxawaay bi di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man muhammadu